ñoo ngi leen di nuyut leen siyaare bu baax di jiital ci nuyoo boobu ak siyaare bi al cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul am li taifatul muridiya yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te may ko ak wér ak mbooleem njabootu cheikhul xadim ak nun taalibe yépp di siyaar ak a ñaanal sëriñ Omar sëñ Mbàkke Bousso di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak mbooleem njabootu sëñ Mbàkke gépp ñoo ngi ñëwaat ak yéen tey ci jaar jaari mag ñi di fàttaliku kenn ci lislaam ji kenn ci diine ji kenn ci yoonu murit di mbokkum sëriñ bi di taalibeem di xaritam di léppam di sëriñ alxaaji mbàkke buso alxaaji mbàkke buso mooy doomi sëriñ mbusoobe ak sayyidatuna faatima di soxna fati balla alkubra di léppi sëriñ bi comme ni ñu ko waxee léegi rek ndax waajuram bu góor di sëñ sëriñ Bousso bi mook soxna Mariama Bousso jaaratullahi ñoo bokk ndey ak baay waajuram bu jigéen di soxna maam Faati Balla al Kubra mook mook sëñ Mor Anta Sali ñoo bokk benn baay kon moom doomi bàjjani sëñ bi la di doomi nijaayam mi feeñ jamono ci atum 1228 ci gàddaay gi ci atum gàddaay gi tolloog 1864 ci miladiya am njàngam waajuram bu góor jàngal na ko muy sëñ bu soobee waaye li ëpp ci lum jàng sëñ bi ko jàngal ginnaaw ba it dem na ci sàmb sëñ sàmbatu kulóor ka it jàngal na ko mu géeju lool ci fànni xam-xam yi yépp rawatina nag euh, lu mel ne xam-xamu diine li jëm ci wàllu wàllu bidiw bidiw yéeg ak calcul lu mel ne maanaam ku mel ne ab taawam sëriñ Modou Bousso daana wax ne sëñ Mbàkke daana jekk woon na lu mat eh, ñaar fukki fànn ci xam-xam ñaar fukki fànni xam-xam yoo xam ne jekk woon leen lool lim léegi yi gën a ràññu ko ci moom taalif na ay téere yu bari bokk na ca téere yi ma yi mu taalif ñu mën caa tudd amaanul balit min xatari taqlit ak risaala fii fanni rasmil mushaf ak risaala fi hilmil faraid ak yawaaqitu salaat fi taqribi awqaati salaat ak yeneen yi ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne sëñ Mbàkke moo ko bind muy boroom xam-xam bu ràññi ko woon ci xam-xam boo xam ne ñépp xam nañ ko eh, maanaam ci réew mi ñépp ko xam ndax xam nga seede yi nga xam ne alxaji malik si waxoon na ko ne doy na sëkk ci xam sëriñ Tuubaa rek xam kan mooy sëñ Mbàkke Buso rek tegtal la ci xam doyob sëriñ bi muy koo xam ne sëriñ bi wóolu woon na ko lool ci léppam ndax wóolu euh, mënta weesu batale batale ko ci ginnaawam ngir mu taxawu ko ak yeneen yu baree bari yoo xam ne daanañ ko seq ci seen diggante sëñ bi daana ko daana ànd ak moom ci xalawatu yu bari bu mel ne bi ci gën a siiw bokk ci Eh, bi sëñ bi doon defee Masaalikul Jinaan ca Mbàkke booba sëñ Mbàkke moom moom la tëjuloon ak yeneen ak yeneen yu bari sëñ bi féetlu woon ko ci wàllu tontu bataaxal yeeg ak lettre yi ñuy bind lu mel ne lettre bu jëm ci jumaa jeeg ak eh, lettre yi nga xam ne mooy jëm ci kilifa diine yeeg yu mel noon ak natt jàkka yeeg yu ni mel ndax jàkka jàkka eh, jumaa ji jumaa ju mag ji moo ko njëkkoon natt natt ci jamono yi siñ bi biñ ko njëkkee commencé ak yeneen yu baree baree bare sëñ Mbàkke bu soo nekkoon kilifa goo xam ne ñëpp war nañoo euh, royaat ci moom war nañoo bàyyi xel ku mel ne sëñ Mbàkke bu su ak i kemam ndax ñu mel noonu dañ leen a war di waxtaane lu baree baree baree bari nit ñi di ci roy di leen ko euh, xam-xam bi li muy bari bari bari taalibe gi euh, kenn mënu ko ci kenn mënu ko woon a jot ci taalibe gi ndax doy na sëkk ci garaat bi nga xam ne moom la ñëpp wut muy murit saadix moom sëriñ bi nanguloon na ko ne borom murit saadix euh, la ndax wax nañ ni ca gànnaar am na ku ko mas a laaj ndax am nga ab taalibe euh, mu ne ko waawoo mu ne ko kuy sab taalibe mu ne ko ku ñuy wax Mbàkke Buso ca ca ca Sénégal loolu nag dara ju ju kawe kawe la joo xam ne am na kilifa gu baax gu daan wax naan euh, sëñ bi de li wax lépp Euh, dara dara woyefu ci am ko ne ko waaw li mu wax ne li mu wax ne képp ku ko yaakaar ab taalibeem dana dana def lii dana def laa mu ne loo loolu loolu gën a naqaree ndax wóolu mu ba xam ndax nangu la nangu la ma sama taalibeem déet sëñ Mbàkke mii nag sëñ bi nanguloon na ko ak taalibeem euh, ci atum 1916 ci la ko digal mu sanc Gédé Gédé Bousso am na ñu ñu wax ne 1916 la ko la ko sanc 1928 tam bokk na ci naal yi nga xam ne mottali na ko muy xajal eh, makk xaj eh, makk gi ma xam ne defoon na ko ànd ak Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta ak Cheikh Mahamadul Fadil ak El Hadj Sine ak ñeneen ak ñu bari ngir mottali joxe ay ponkam waaye mottali yéene sëriñ bi loolu loo am am solo loo xam ne eh, histoire bu rëy rëy la boo xam ne nam ca taxaw woon ci wàllu xam-xam ñëpp dégg nañ ko. sëñ Mbacke euh, nekkoon na nekk na géej goo xam ne moom it comme niñ ko waxee ci mag ñi ko weesu rek kenn ku ci nekk bu ñuy wax ci yow dañuy fexe ba jël ci lu am solo rek loo xam ne nit ñi lañ ko mën a jëriñoo euh, waaye duñ bëgg a duñ mën a indi lépp ndax ñoom seen dundu gépp dañ ko jeexal takk ci liggéeyal suñu borom subhanahu wa ak liggéeyal sëñ Tuubaa te seen dund gépp euh, géej la goo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom rek dangay jël li nga li nga mën a jël rek keneen ñëw jël li nga mën a jël waaye kenn mu ko jaaxal bokk na ci dëkk yi nga xam ne sanc na ko fu mel ne daarul maraam ak daaru sakuur ak xadaim ak al ashar yooyu eh, jëde am na ñu ne 1916 am ñu ne 1917 eh, bi nga xamee ne yàlla dogal na mu wuyu ji boromam doomam yu baax yi nga xam ne bàyyi na leen fii wéyal nañu ab liggéeyam ku ci mel ne sëriñ Modou Bousso mi nga xam ne mooy ab taawam ak xam ne ku xam sëñ sëñ Mawlaaya am na histoire bu xóot bu siiw bi nga xam ne moom lañu nettali ci magal gi euh, moom la sëñ bi doon defarloo gàtt ba ak sëñ Baaxe Bousso mi nga xam ne moo wutu sëñ Mawlaaya ak sëriñ Njaaña ñu nekkoon ci barab bi yoroon barabu sëriñ bi ak sëñ Moxtaar Bousso mi nga xam ne jàkkee sëriñ Mbàkke Buso ji ji jumaa ji moo ko fa def mi nga xam ne moo ko mujj moo ko mujj wutu ci ak njabootam ak sëñ Ibrahima Buso mi nga xam ne moo njëkk wutu eh, sëñ Mbàkke ci sët yi ak eh, sëriñ Thierno Buso ak sëñ Omar mii nga xam ne moom it eh, ku mat a ñaanal la ndax mi ngi liggéey liggéey bu am solo ca Gede lu si mel ne université boo nga xam ne mi ngi koy defaral sëñ Mbàkke Buso ak da da <clears throat> daara jooju nga xam ne mi ngi koy defaral sëñ Mbàkke Buso ak yeneen liggéey yu am am solo kon nag yàlla na ko yàlla yàggal te ko ak wér te mottali ay yéeneem te am moom ñoo ngi e, ñaan bisub sëñ Mbàkke Buso bii nga xam ne moo koy fàttaliku mu war a nekk le 16 septembre bi ñu jëm yàlla nañ suñu borom yeggal ak jàmm te day cee ngërëmal sëñ Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm siñ sëñ Babacar mi àndaloon ak mbooleem ñuy jullit ak ñu seetaan